juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs xibaaru ngoon geek li ci gën a fës juróom-ñetti fukk ak juróomi doomi sénégalais doomi Sénégal ngeen baal ma la ñu faat ca biti réew ca diggante 2011 jàpp 2018 ab xibaar la bu tukkee ci Boubacar Seye moom muy gëstu ci wàllu migration internationale ah, mook Ndioro Ndiaye nag li ñu xamle moo di ne faaw rek ñu sampay kuréel yoo xamante ne day waxtaan ak ah, sénégalais yu fexe kon ba duñu dem ci réew yi nga xamante ne foofee euh, la musiba boobu euh, ëppee horizon sans frontières teg ci ne mercredi bi rek àllarba gi lu toll ci ñeent fukki doomi Sénégal daal dinañ leen a delloo si euh, fii ci Ndakaaru réewi Europe yi nag mu ne ñoo def lu ni mel autoroute à péage ak accident yu bëri ñu fa nemmeeku téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi nag jàpp leen ne chauffeur yi ñoom ñoo ko sooxee bu sukkandikoo ci kilifa yi autoroute ba liñ ci teg fukki yeeg ñaar oto yi nga xamante ne baaxuñu ñoom ñoo ko waral ñu wax itam ci nag yi nga xamante ne dañuy faral di doxantu ci kaw autoroute bi ñu ne loolee faaw sàmmkat yi bàyyi ci xel bu baax a baax gendarmerie ak njiit lu bees bi moo am di Cheikh euh, seen euh, Seck bokk ngeen baal ma moom daal dinañ ko installé ni ki tey jii ci suba mu wax moom Cheikh seen li ko tax jóg di fexe rek ba xeex grand banditisme cybercriminalité ak lii di terrorisme kaaraange askan wi tabaski bi ak xar yi tàmbale tuuru fii ci ndakaaru ah, ca Fass Delorme seetlu gi nag moo di ne race bu ngeen bëgg am na fa njëg yi nag wute lool ah, jaaykat yi li leen jaaxal rek moo di ne ah, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di client yi ba tey gisaguñ leen mbokki yi lii mooy ponk yi fi gën a fës léegi léegi ñu daal di faram yi jaa ngeen jëf ci ànd bekk télévision Futurs média ñu leen di dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi ni ñu ko junjee doore ko lu soxol wàllu migration ak sénégalais yi nga xamante ne ah, faat nañ leen ca biti réew diggante deux 2011 jàpp 2018 jàpp leen ni tollu nañ ci juróom-ñetti fukk ak ah, juróom bu ñu sukkandikoo ci Boubacar Seye bokk ci Horizon ah, sans frontières moom nag li mu xamle moo di ne kilifa yi faw rek ñu sampay kuréel yoo xamante ne dañuy waxtaan ak ndaw ñi fexe ba bu ñu bëggee tukki itam du ñu dem ci réew yi nga xamante ne fan lañ leen di gën di fitnaal dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow ak Younus Diatta ay sénégalais yu ñuy faat ci bitim réew ci ay accident wala ci yeneen i anam bëri na luñ koy nemmeeku fan yi ñu jàpp ni diggante 2011 ba 2018 lu toll ci juróom ñetti fukki nit ak juróom faatu nañ ci bitim réew. en sept ans entre 2011 ba 2000 ba bisu tey jii nii. quatre-vingt-cinq sénégalais yoo xam ni rey nañ leen en sept ans mooy lan plus de douze fukk ak ñaar douze chaque chaque mois ça veut dire que donc chaque trente jours benn sénégalais kon dinañ ko rey. muy Afrique wala Europe wala sax fële ci Amérique bëri na ay nit yu ñuy fàtti ay sénégalais waaye nag dañoo jàpp ni anam yi ñu leen di fàttee wuute nag ak ak continent. dëkk bu mel ni Brésil. ñu ngi ko tuddee euh, zone de violence endémique parce que foofu le taux d'homicide moom euh, wax nañ ni li fa dee entre 2011 ba 2015. ñoo ëpp li dee ci guerre Syrie bi. nga jël aussi dëkk yu mel ni Congo tamit euh, toujours typologie bi bokkul mais dafa am dëkk bu mel ni États-Unis yooyu yëpp ak cetera et cetera donc tey daal ci gàttal daal le monde de est secoué par une spirale de violence. suñuy waxtaanal jàpp ne li gën a ñaawlu mooy fat yooyu lee bu faralee di am du am topp gu war ngir ñu xam ci yan anam ak ñan ñoo amal jëye yooyu le la migration se prépare madame dañ koy pare migration kenn mënul tëpp rek ndem ne da ngay da ngay di nga réussir la migration bu fekkee ne surtout da nga nekk irrégulier bu fekkee ne da nga nekk régulier sax ci la gën a encore taf ci ngay seet fan nga jëm noo fay toogee yan moyen nga am ak naka nga mën a def ba la nga fa nar a gañe nga mën ko fructifier. ni ñu rey ñëpp buñ ko xaymaa ci ñaata lay tool mais boo xoolee benn mu jul fen na kon euh, ñun li ñuy ñaax l'état du Sénégal euh, le ministère par le biais le l'état du Sénégal euh, par le biais du ministère mu demander au procureur xam nga mu initier. benn procédure d'enquête. fii ci Sénégal ñoom ñu jàpp ne xale yu bëri dañuy faral di bëgg génn ngir dem bitim réew wuti liggéey ñoom ñu ne groupe Sénégal bu jëloon matuwaay yi yokk liggéey bi du ñàkk ne xale yooyu le toog seen réew liggéey mooy gën ñuy dem ci bitim réew ñu fay am ay jafe-jafe. Aminata Mbare Sow moom Boubacar Seye li mu ci teg moo di ne euh, ci àllarba gi rek am na ay doomi Sénégal yu ñu delloo si ci xayma ëpp nañu ñeent fukk mu ne nag réew yu bokk ci Union européenne euh, ñoo amal li ñu mel dañu koy teewul. L'information boobu c'est clair ça a été relayé dans la presse damay wax ni man xaaruma woon presse bi pour wax ko parce que euh, il y a un an rédaction yëpp yónnee naa leen le rapport bi nga xam ne Union l'Europe des 28 wax na ko nee na. képp koo xam ne migrant économique nga dinañ la delloo sa dëkk su dul tey di ëllëg et le migrant sénégalais est un migrant économique parce que kooku le migrant sénégalais il n'est pas protégé par la Convention de 1951 sur les droits des réfugiés. Il n'est pas protégé par le pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile. kooku dañ koy delloosi loolu moo tax ay doomu sénégalais suñu génnee dañuy dañuy wax ni doomu yeneen dëkk yi la bañ ñu delloosi leen mais il y a des mécanismes des pour les pour les identifier ñooñu ñëpp dañ leen di delloo loolu moo indi tey ñu delloo te am na ñeneen ñu ñëw du leen delloo. Euh, wax na 40 la ñu wax plus de la ñu wax mais am na ñeneen ñoo xam ne ils sont dans les couloirs dañ leen am na ñeneen c'est dans toute l'Europe Allemagne dina ko def France ci la dëkk ñeneen ñëpp fi la dëkk États-Unis mu ngi koy def yeneen ak ñeneen duñ ko def loolu il faudrait que ça soit très donc tey euh, li état waroon def jël ay matuwaay. Sori Kaba di directeur de Sénégalais de l'extérieur muy ci buumu jokkoo gi monsieur Kaba maa ngi lay nuyu. Euh, dégg nañ ko léegi moom Boubacar Seye mu xam ne ni am na ay doomi Sénégal yu ñu delloo si ay euh, ci lim mu ne ëpp nañu ñeent fukk ndax xibaar boobu lee danga koy dëggal. Euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant euh, di gërëm ñëpp ñu ñu ñu ñuy seetaan di ñu déglu euh, di wax ni rek ñi nga xamante ne actuellement auditionné nañu leen Las Palmas ak Tenerife effectivement toll nañu ci ñeent fukk parce que ñooñu mooy ay sénégalais yoo xam ne dañoo jaar ci géej gi. ci diir boo xamante ne yàggul te gouvernement bi it am taxawaay bu mu wax ci mbirum immigration irrégulière ñu war koo décourager ñu war koo combatre parce que doomu Sénégal yi perte seen bakkan ci géej gi kenn xamul nu mu toll amul nag benn état au monde bu mën a seetaan loolu nangu ko accepter ko croiser les bras kon tey wax ji nekkul ci doomu sénégalais yi nga xam ne dañu nekk en situation irrégulière ci dëkku occidentaux yi mais wax ji mu ngi tegu ci doomu Sénégal yi nga xam ne dañoo jaar ci géej gi ci diir bu gàtt yegg si ca frontière ya nekk ci centre de rétention administrative yi ci ñooñu la débat bi nekk actuellement mm-hmm. fulla ak fayda bu gouvernement bi am nag moo tax ba ñooñu dañuy door a yegg si amaguñu këyit xamaguñu fu ñuy taxaw su fekkente ne seen nationalité sénégalaise dafa avéré wu je crois que li gën moo ñu delloo si leen jox leen ay perspectives fii ci réew mi débat bi nag mooy est-ce que boo dellu see di nga nangu ñu jox la perspective pour nga mën a liggéey parce que loo dimbalee sa njaboot nga doon wut kon bu ñu la dexee loolu sa loxo war ngaa mën a jàpp ci loolu ngir dimbale sa njaboot kon wax ji yëpp ci loolu la tënku jarul muy gudd jarul muy gàtt jarul muy inventé inventé ay convention yoo xamante ne yàgg na lool wala ay loi yoo xam ne yàgg na lool débat bi mooy actuellement le gouvernement du Sénégal nanguwul le président Macky Sall nanguwul a signe ay accord de réadmission pour doomu Sénégal yi nga xam ne dañu nekk en situation irrégulière mhm. waaye ñiy jaar par la voie maritime de manière irrégulière nekk dans les centres de rétention administrative ñooñu ñu fexe nañu leen delloo si offre leen perspective ci loolu la ñuy liggéey actuellement. Euh, dégg nañ ko itam mu wax ci doomi Sénégal yi ñuy faral di faat ca biti réew mu ne dossier yu bëri daanaka du mujj fenn wala bokk euh, duñu ko euh, duñ ci doxalee niñ ci ni mu ci war a doxalee looy tontu ci lool waaw li ma ciy tontu mooy li ma am habitude di tontu parce que fii ku ci nekk même fii ci réew mi su fekkente ne danga am ay jafe-jafe ak yoon bu dee citoyen lambda la nekkul ne. Sénégal mooy jël à travers le ministère de la justice ou ministère de l'intérieur di wax ni kat doomu Sénégal bi jugé nañ ko tel jour tëj nañ ko tel at nangam ak nangam dugg na fii génn na fii parce que c'est des dossiers civils nit ak moromu nitam la. Hmm. ci kaw loolu nag li nga xamante ne moom la président de la république di joxe instruction ministre des affaires étrangères di ko wéyale jaarale ko ci ay ambassadam ak ay consulayam moo di dañuy apporter assistance judiciaire mhm. dañuy apporter assistance consulaire bu jaree ñu fay avocat ñu fay avocat pour que doomu sénégalais yooyu nga xamante ne beneen doom ci dëkk ba ñu nekk tooñ na leen pour que yoon mën a dal seen kaw mhm. léegi nag est-ce que ñun ñoo war a jël suñu baat yëkkati pour wax ni ah diw day tëj nañ ko ñaata at diw day libéré nañ ko pour ñun débat bi nekkul foofu mhm. débat bi mu ngi ci est-ce que doomu sénégalais bi ñu tooñ yoon ba nekk ci dëkk ba respecté na loi bi nga xamante ne moo war a préserver sénégalais boobu. amul fenn fu ñu ci mën a reprocher bu Sénégal parce que taxawaay bi ci war def nañu ko. Mhm, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waxtu bee ñu xaw a xocc moom Sori Kaba di directeur des Sénégalais de l'extérieur doon addu euh, ci li soxal situation euh, doomi Sénégal yi ne ca euh, biti réew ñu wax ci leneen di wàllu wér-gu-yaram ak li ñu tuddee secret médical maanaam loo waxtaan ak sa docteur mu daal di des seen diggante loolee nag lu ñu respecté la fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci professeur Boucar Diouf leneen lu mu ci teg moo di ne képp koo xamante ne respecté woo ko muy ci euh, docteur yi am na ay daan yoo xamante ni mën nañ la kaa teg ñu dem sax nag ba tere laa euh, def sa liggéey dootoo nekkati euh, médecin dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf ak Pape ni Mbaye di amal liggéeyum paj nag doon na rek liggéey goo xam ni kon laaj na ci médecin bi mu am bàmmeelu biir ci lépp loo xam ne nii information la ñeel kon ka faj. sauf contre ay conditions particulières amoo droit wax ko walla boo ki feebar soxla nga waxal ko waxal ko ki nga wax nga wax ko ak ay mbokkam ku mineur koo xam ne amagul par exemple quinze ans ou dix huit ans foog foog naa mineur Sénégal dix huit ans la mu feebar mën nga ko wax ay mbokkam koo xam ne aussi dafa nekk euh, li ñuy wax curatelle maanaam xel bi xel bi matul wala mu dof carrément kooku da nga koy feebaram da koy wax ay mbokkam fekk aussi dafa am euh, li ñuy wax les maladies professionnelles feebar yi nga xam ne aussi dañuy wàlle nga xam ne day def épidémie wala wala juge bi mais juge bi foog mu am kayit bu jóge ci yoon bu la wax ne yow yow ci sa bopp boo xam ne sa tur lañ ci bind yow euh, juge bi dafa soxla information ci nangam nga xam ne yoon moo ko bind fii ci Sénégal nag médecin yi dinañuy doppoog ak la nga xam ni kon moom la leen yoon sant jëm ci loolee bu ñu sukkandikoo ci professeur. en tout cas médecin yi secret médical bu ñu mën a garder la parce que disons amul amul benn contrainte bu leen obligé ñu wax ko. ñiy jóge fii dem bitim réew nit euh, ci bëri en tout cas médecin am na médecin peut-être du médecin yëpp am na médecin yoo xam ne xam nañ ko fii Dakar seen feebar. professeur Mor Ndiaye ne kon amul leen lu nit ñu war a tiit ñeel loole. moo xam sax ñay dem ca bitim réew it di faju je pense pas je pense pas parce que quel que soit aw fois médecins yi ils exactement que le secret médical ne doit pas être waaye médecin gi nga xam ni nag du dëppook yoon kon di jalgati secret médical googe am na daan yu mën a tegu ci kawam mun nga si dem kaso mun nga nga si agamaan aussi ba pare ordre des médecins sax mën na nga suspendre ba dàq secret médical doon kon doxalin goo xam ne nii ak taxawaay gu ñuy xaar ci bépp médecin lépp ngir sàmmanteek droit nit ka muy faj jaajëfal ko moom Mame Birame Diouf wax ci lu jëm ci wàllu dem beek dikk bi ak autoroute à péage ak accident yi ñu ciy faral di nemmeeku téeméer boo jël jàppale ni juróom-ñett fukk yi euh, chauffeur yi ñoom ñoo ko sooxe fukki yeeg euh, ñaar yi oto yi la loolee nag ay xibaar la yoo xamante ni kilifay autoroute bi ñoom ñoo ko joxe leneen li ñu ci teg moo di ne euh, boromi nag yeeg yooyu ñoom it war nañoo bay seen waar ci mbir mi ndax jaadootul nag yooyu la ñu leen di bàyyi ñuy doxantu ci boobule autoroute Salif Sow ak Asmaric Diop ginnaaw accident yi fi seetlu mu jur ay nit yu amee gaañu gaañu ba ci sax ñu ñàkk seenu bakken waxtaan wi ak ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo autoroute à péage bi mu ngi wéy waaye li nga xamante ni moom mooy nag yi di traverse tali bile mooy jafe-jafe bi nga xamante ni gaañi fi ñu toll nii ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy. dugg nag yi ci autoroute bi ñaari perte maa la parce que perte nag bi. te mën na créer benn accident boo xam ne bi tamit perte humaine mën na cee nekk. donc yëpp suñu perte la ñu waxtaan ak ñoom sensible leen ba ñu comprendre li ñu wax après ñu jógee foofu jàppaat beneen jour ñu dem Kër Massar. waaye li nga xamante ni moom mooy indi accident yi ci tali bi dafa bari te wuute du loolee rek ki nga xamante ni moom mooy chauffeur bi ñaare doxalinam day indi accident wala sax oto bi nga xamante ni bon na. 80 pour cent wala lu ko ëpp sax si. accident yi si accident yi nga xam ne ñoom ñoo am si autoroute bi lu si bëri si comportement chauffeur am na ay euh, pourcentage yoo xam ne si élément technique yi la mais lu si bëri si comportement bi la képp koo xam ne yor nga oto mu def ndànk ah di dawal ndànk wàññi vitesse am mais aussi muy toppatoo otom kilifa yi nga xamante ni ñoom ñooy yore autoroute à péage bi lee àllarba gi sax ñu ngi amal la ñuy woowee campagne gratuite maanaam dangay ñëw ñu defal la visite technique sa oto te doo fay dara ci juróom ñetti lay am nee ñu luñ ci jublu mooy bu néewee ba néew dimbali ñetti téeméeri borom woto ñu xool ndax seeni woto am nañu paanam déet. maanaam vérification kese la ñuy def. boo so fekkee ne dañ la vérifier ba pare dañ lay bindal sa ordonnance après nga dem seet si ki nga xam ne moom moo la war a mën a defaral mu defaral la am na ñoo xam ne tamit ñu ngi fi bu fekkee ne jënd nga aussi mun nañ la ko defaral sur place. ay frein yu baax ay pono oto yu baax it ak li nga xamante ni moom mooy ay lampe ay phare yuy tàkk ak ay feu stop yoo xamante ni boobu seen frein it mu xonk bokk na ci li nga xamante ni mun naa sauver nit ñi ci accident yopp seenu bakken mënoon na caa des. Salif euh, Sow ñu wax ci njëgu péage bi dinañu ko wàññi euh, lu yàggul dara bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu Eiffage moom euh, Gérard Senac ne nguur gi nag moom mooy joxe yooyu lee njëkk waaye lu yàggul dara dinañu ko xam ay kàddu la yu mu yëkkati ci bi ñuy amal ab xew-xew soxal boobule autoroute. ñu wax ci lu soxal marché public yi ak euh, code euh, d'éthique et de déontologie bi nga xamante ne euh, ñu ngi ci ab projet ngir jëmmal ko loolee lañ doon waxtaanee ci ab atelier bu ñuy doon amal tey jii ci suba fii ci Ndakaaru ci teewaayu député yi boole nañ leen ci ngir gën leen a gindi ci boobule code ARMP nag di kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu marché public yi moom moo jël boobule initiative kenn ci ñoom di Badara Fall yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Mame Birame Diouf def dañ ko rafetlu ndax dafay tax bala ñu cay yegg ñu xam lan moo ko waral ak it lan moo tax ñoom ñu def ko ak ci fan la taxaw bon loolu loo xam dañ ko rafetlu vraiment muy relation de partenariat yoo xam ni vraiment institution yi ñu ngi koy am te muy yombal liggéey bi nga xam ni moom lañ am ci parlement ba ndax kenn umpalewul ni commande publique li muy jël ci xaalis bëri na lool te loolu xaalisu état bi pour réew mi la te li ñuy def yëpp dañ koy def pour population yi mën ci bénéficier loolu nag bu ñu demee tey ba mu am directive UEMOA numéro 4 bu 2012 boo xam ne dafay wax affaire transparence ci biir transparence boobu mu taxawal éthique ak déontologie daat ne loolu moom mooy xalaat nañu jàpp ni texte yi lu mu baax baax lu mu dëgër dëgër nuñ ko mënti defaree ay nit ñoo koy yore di ci liggéey nit ñooñu nag war nañu am éthique war nañu am déontologie ci wàllu politique ñu wax ci bataaxal bi nga xamante ne maître Abdoulaye Wade bind na ko ci atum bind ko ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di président Macky Sall doon ci waxtaanee rek ni ñuy def ba ñi euh, bokk ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuyoo ay libéraux ñu doo euh, toog waxtaan am benn gis-gis loolee nag Abdou Mbow bu APR lim ci xalaat moo di ne jamono ji moom waxtaan bu naree am lépp ci ni mu wala bokk ci ni ko. ko président Macky Sall bëggee noonu la koy euh, amee ndax jamono ji libéral la te moom la ñu dénk nguur gi Lamine Ba moom bu parti démocratique sénégalais li mu xamle moo di ne ñoom jamono ji euh, seen priorité euh, feneen la waaye du waxtaan ngir rek jubóole ñi nga xamante ne ñoom ñoo di libéraux yi Alassane Ba Pape Sangone Mbaye ñaari xalaat yu wuute kenn ki nag jàpp na ni njiitam mooy jamono ji leader njabootu libéral élection yee ko may ci xalaatam keneen ki nag moom dafa jàpp ni li ñuy duppee doctrine libérale daanaka ay idée la. waa defe naa ne ay nit suñu demee ci ay jongante ñu ne ku ne tàllal sa loxo sénégalais yi ne kii lañu wóolu waa kooku kay jàpp naa ne bu jiite amee wala ñuy daje ci autour d'une personne waa kooku moo war a jiite. mënuma bañal Macky Sall ne libéral la mais gisuma depuis mu falu ak léegi lu mu teg. di akt politique bu nga xam ne nii dem na ci dynamique gu consolider patrimoine libéral bi ñuy jot jotee ko ci Ablaye Wade. d'ailleurs li ngay fàttali nii lettre Ablaye Wade la woon 2013 kenn mësu cee tontu ci ñi ngi may tudd nii. ci jamono jooju maître Wade mu ngi doon wax jëmale ko ci kii di Macky sal ci bu ñu sukkandikoo nag ci extrait yi nga xamante ni quotidien Libération publié na ko. jëlaatal ñenn ci samay ministre ya nga xam ne mën nañu seen liggéey yaakaar naa ni faw rek ñu yeesalaat njabootug libéral gi yow ak ñoom Idrissa ñoom Pape Diop da ngeen war a ñëwaat ci biir njaboot gi ngir ñu mën a taxawal benn candidat bàyyi ju nekk da ngay bëgg sa njaboot dajaloo nekk benn di diisoo di nas di nocc Abdoulaye c'est un homme sincère loolu la yéene woon bi ñu ñàkkee nguur gi ba mu koy wax ak jamono yi ñu nekk dafa wutee jàpp ne moom tey jii képp koo xam ne yaa ngi wax retrouvaille quoi que ce soi moom nga war a ñëw jàppale ko pour mu àggale liggéey bi. 2013 2018 lu bari soppeeku ci diggante bi wante fàttali nag ne am na ab document officiel bi nga xamante ni ki ko bind mooy ki ñu jàpp ni mooy fondateur doctrine libérale fii ci Sénégal maître Abdoulaye Wade li mu ci doon sàkku nag mooy fexe ba képp ki nga xamante ni dafa bokk ci njabootam ñu boole seen doole nekk benn say ngir mën a ànd gouverner. jàttaax ca département bu Podor foofee la roplaan bi daanu démb roplaan boobule yaboon produit yi nga xamante ni moom nañu doon jëfandikoo ngir rek xeex lépp lu jëm ci wàllu gunóor wala njéeréer doon sonal euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu foofule ci wàllu mbay mi askan wi nag àdduna ci ña fay yeewoo lu ñu xam xamle moo di ne li ni mel euh, ñu ngi koy soog gis ba tax na noppi wu ñu ngir euh, fàtte ko dañu koy fekki suñu ay correspondant di Ousseynou Diop Habib Sénégal matul benn kilomètre fi la l' bi amee avion bi di type turbo trëche moom moo daal di daanu ki nekkoon ci biir ñàkk bakkanam fii nag ci bërëb bi nii la mel. crash avion bi fii la amee euh, ci Jatar nekk diwaanu ko fii nag fii la pilote bi nga xamante ni mooy pilote français bi ñàkkee bakkanam di Jean Bourri doon loo xamante ni ñu nekk ci gox bi ñëpp jàpp nañu ni mooy première fois ñu koy gis. bon c'est la première fois man ma gis ko mosuma ko gis li moom c'est la première fois ma ci daj gis ah, capteur bu daanu c'est la première fois ñu daj loolu ma tax ñu ñu tiit sax parce que soo loo mosul gis soo ko gisee rek da ngay tiit da nga yaakaaroon leneen la sax mais bu ñu ñëwee mu ñëwee benn kii benn tubaab la woon ay picc la doon dàkk xaw ma produit la yor pour picc yi. ah foofu nag ay autorités yu bare dégg naa ñëw nañ fii autorité Sénégal autorité Mauritanie taxaw nañ ci yóbbu nañ ko. avion bi nga xamante ni nag daanu na ci jataar Mauritanie ñu ci bare daan nañ ci yëy yàbbi ñu jàpp ni mbir mu metti la. boor 6 heures 10 yooyu mu daanu xam na yëg nañu daanu xam xamuñu fan la ñu dugg ci àll ba di wuri ba ñu ba foofu ñu gaa yi njëkk ñu si ñoom fekk gaa kii bi gaañu na après ñu wol kii bi ñu wol. Euh, chef village bi chef village bi ñu wo wo woote Daaray Barki suñu arrondissement foo mooy suñu arrondissement fii si Barak na la bokk. ñu ci bare nekk ci dëkk bi ba mbir yi amee dañu tiit ñoom nag nee nañu xamuñu woon sax ni avion moo daanu ci bërëb bi. ñun ñëpp dañ tiit ndax il faut ñu tiit ndax xamuñu xam ñu fan la daañu fan la daañu ñun béykat dañu si encore deux mois si àll ba ñu nekk ñun dañuy béy loolu rek la moom suñu liggéey affaire gars yi yëpp ñëpp ñu nag ñu taxaw si ñu yënd si. ba boor timis waa Sénégal yi waa Mauritanie yëpp ñu ñëw autorités yëpp ñu fekk ñu fi tey sax am na yi war ñu ñu fi teg ñu jógee ñu fi di xool affaire bi. avion bi nga xamante ni moo daanu file nag ma nga jóge woon ci aérodrome bu podoor daal yi daanu ca Jataar bu nekk ca Mauritanie li nga xamante ni nag moo taxoon mu jóg mooy fexe faagaagal yenn ci ay picc yi nga xamante ni ñu ngi sonal askan wi nekk ci vallée bu fleuve Sénégal. waxoon leen ko ci bopp xibaar yeeg général Cheikh Sène mi ñu euh, daal samp tey ci suba mu nar a jiite nag gendarmerie wax na li ko tax a jóg yokk kaaraange askan wi xeex terrorisme ak cybercriminalité Chérif Dia teewoon na fa waaye ci xibaar yi ci français lay doon ndax waxtu bee ñu xaw a xocc di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi Sara Cissé noppi na ngir euh, gunge leen ci xibaar yi faram fàcce leen ci français ñu fanaan jàmm